ñi doon ko wàññeeku na wax dama ne la borom kër ya fa ñu nekk ba léegi ni lée mbir mi gën a dëgër mitti lool dara wàññeeku laa la wax xanaa bu suukar sa waaw yéene kaa gi dama ne la ya wàññeeku wuñu vingt-quatre heures yéene kaa gis nga kaw la gee lu tolloo juróom benn fukk ak juróom-ñeent ay commerçant yoo xam ne kon dañ leen a parce que nag nangu ñoo wàññi kon dund ga vingt-quatre heures waaye moom Macky Sall mi ma boye ne leen de démb ca conseil des ministres ci lu jëm nag ci wàllum liggéey la wàllum pont Oumar Sassoum Guèye Macky Sall nee na Dakar ak Bujee ak Anulaay ak Taliou Senoba bi ñoo na defaraatu pont wu Tombor Émile Badiane Bayla ak Diouloulou te jamono joo jaay nguuru Macky Sall gi lu ne gis nañ ko fi la wax ci lu jëm nag ci wàllum tappale libération yi rek ane te gis nga wàllum tappale yooye waaw punkal yi ci boppam kon ñoom ñoo koy def laa la wax ay punkal la saga des faussaires à col blanc dama diplomatique ya yéen a ngi ko kon procès fictif bi nga xam ne moom la ñu génnee Abdou Fall mi ñu tëjoon ngir viol la mineur waaw daal di wàññi itam daanam nga Amadou Lamine Diagne nag nga xam ne dañ ne moo doon luxus bàyyi na turam na ca bureau procureur général balay cour d'appel bu Ndakaaru waa xanaa da ngeen a fàtte coowal Abdoulaye Agne 2019 service des affaires civiles et nga xam ne moo doon réparé nationalité ya allahu akbar région bi doon jaay nationalité sénégalaise yi nga xam ne février lañ ko daaneel ngir wàllum activité terroriste allahu akbar termine yéene kaa ne dama ne passeport diplomatique yi lée maa leen ciy wax tey lu doy waar ay jeune mara ay mbele mbele ay ñuy tukki candidat à l'immigration am na ñoo xam ne sax seeni jël lañ ko jox laa la wax yaa jum wala maa ju maa la wax lii yéene kaa gi ne coowal passeport diplomatique yi nga xam ne ay député lañ ci jam kon baalaa mu tuuma saa bu ñu xëyee askan wi ci biir mi la ak ci bitim réew diggante mer mbir maa yi gën a rëy di scandale bi waaw te scandale bi daf ñuy fàttali député yu ësle comme ça indi wuñ ko de déedéet coowal kilifa ak Simon te gis ci biir kaso te député yaa ngi ca di ndaataata lax di doxi seeni soxla laa wax mennum alaaji jaaji kon de kese lañ ci tëjagum ci kaso bi nga ne lii xel day na de lool lool lool waaye xoolal leen ma dossier Ousmane Sonko xoolal leen ma dossier Barthélémy Dias xoolal leen ma dossier ba Babacar Sall ak na ca assemblée nationale ba taxawee laal li malaanu kirange yóbbu leen fa ma xam ne nekke benn waaye député yi ñoom mbir mi daal xam naa ni yéex na critique yéene kaa ne waaye yéex googee jeex na aha waaw waaw dama ne la waa ji wageeg Sall seeni mbir jeex na parce que gaañaa nga ca procédure d'urgence ca assemblée nationale ngir laal li seenu malaanu kirange laa la wax xam nga opération bi nga xam ne moom nguur nguur gi ci dossier Seydina Fall bu ga mi naan waaw boo leen gisee mu am liberté provisoire ñeñ ñeñ ñeñ patiti patata parce que justice bi bugaaseel yi lii ak lii loolee yeyul nit ñi waaw looloo tax nag ba assemblée nationale day ci député yi dana ca jóg de yéene kaay bi ne te gis nga Moustapha Niass waaw bëggul jaaree ci buntu sarale bi de déedéet bëgg naa defar crédibilité dara jaam Moustapha Niass bëgg naa delloo assemblée nationale cërëm last coowal passeport diplomatique yooyu yëngooti moom la koy laaj allahu akbar ca yàlla 24 heures yéene kaa ne boo leen bëggee dégg dëgg waaw Macky Sall ci boppam moo xamatul fi muy taxaw déet waay akay ah libération yéene kaa ne Ousmane Diagne day mafia kàcc kàcc waaw bàyyi nañ ko mu ñibbi démb de ginnaaw ba mu jàkkaarloog procureur ba pare moom Assane Diouf tamit day weeru yàlla lañ ne lañ koy daan waaye du ko tëdd sursis la maître Khoureychi Ba mooy seen avocat ñoom ñaar boo fi nekk loon lambaay ñaaw de na nekk luy mit lool lool lool ci parti démocratique sénégalais dama ne la baara gay meeru yëmbal sud ak dirigeant coalition bi nga xam ne Ousmane Sonko Khalifa Sall ñoo ko jiite juboo nañu de baara gay kay digganteem ak PDS ci xeex la ñu jëmaat de le quotidien yéene kaa ne gis nga élection waaw retrouvaille juboo am na ci Bamba Fall ak Khalifa Babacar Sall <laughs> wàllum réel politique la de ñàkk pexe pexe la meeru Medina daa bëgg nekkat maire Khalifa Babacar Sall daa waaw candidat la ca Sicap Liberté de APR maa la ko wax Serge Malu yamu ca parce que nee na waxuñu président responsable la Parcelles Assainies ci tribune yéene kaay nee na menn Maymuna Siis xooxuma kese mooy yëngal base bi fii ci Parcelles Assainies Walf Fadjri investiture Benno Bokk Yaakaar yi waaw ñi nga xam ne dañoo transhumé day ñi ngi ci guddi gu bët sa tagul de maa la ko xoolal Dakar ngay jël Jóob ñi nga xam ne ñoo bàyyi woon taxawu di Alioune Ndoye waaw waa gars yi fan la ñuy mujjee xam demal ca diwaanu Ziguinchor gale Abdoulaye Baldé fan lay mujjee xam demal ca diwaanu Podor Aïssata Tall Sall fan lay mujjee xam terrasse na nga fa ca diwaanu Thiès gale Idrissa Seck day moo defoon Talla Sylla maire moo Talla fan lay mujjee xam Ourossogui maître Moussa Bocar Thiam PS fan lay mujjee xam L'Observateur ne gis nga investiture Benno Bokk Yaakaar yi lé kenn xamul fan ngay mujjee ci ñoom suspense bu da ngaa nekk ca base ba di yëngal gësam di mobiliser di yëngal rek na yow la ah maa la ko wax professeur Alioune Ndiaye waaw nee na Macky Sall am na ci ay gox yoo xam ne dina fa am problème de yu bari sax parce am na ñenn ñoo xam ne nit mënul fexe ba ñu bàyyi candidat mbaa dee allahu akbar am na ñoo xam ne tamit dañuy fayu ku leen jiitalul ñu sanctionné Benno Bokk Yaakaar jël seeni voix jox ko opposition ba yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne révision exceptionnelle bi ñu doon yi waaw liste électorale yi day tey jële ci alxames ci Cheikh Oumar Sy président GFC commune Gueule Tapée Fass Colobane waaw wax na de nee na opposition bi amuñu benn intérêt di tasaaroo laa la wax waaw waaw gila Cheikh Oumar Sy yamu ca parce que surtout Alaaji Malick bi nee li ñoo amul droit nag mooy di diggee rek parce que nag dañoo am population boo xam ne day ñi ngi dund ndool gu miti goo xam ne extrême pauvre day sur quotidien coow yi nga xam ne moom moo fi amoon ci weeru mars waaw enquête ba moom mbaadu demul bi Sidiki Kaba ne commission nationale indépendante pour mu leer waa M2D ne li leer ba leer ne li fi xew nii duñ ko bàyyi mu jàll laa la wax mbir mi day leer rawatina ñi nga xam ne ñoo ci loru lay di victime yi direct news ne ndeysaan te boobu fekk na nag Léopold sera Senghor doon wax naan Dakar c'est comme Paris yaakaaram nga tas na lam doon gént fàtte nañ waaye ñi soxla ndimbal tamit day mooy yenn soxna yi ubbil l'observateur yéene kaay gi nañu mais neexul ba neexul de mais am na jigéen ñu am fidde benn jigéen ñaari jëkkër bigami te daa xew kat abdu itaali waay ñi am fit <laughs> waaye soxna yooyu de ak lu ñu am fit am fit am fit am fit am fit am fit am fit du ñu ëpp fit mu ñi naan suñu pétrole bi lé waaye nañ xam ne suul gaz du ko tere xeñ de te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal